waj'al kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen baalu àq te di leen baal di ñaan suñu bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalentondoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ñu doon ànd ci bind yi weesu ak yéen yépp ci téereem bi nga xam ne moom la tudde maxaaliqu niiraani wa mafatixul jinaan di téere bu ama am solo ñu tolloon ci suñu bind bi mujj ak ci ngànnaay yi nga xam ne moom la nooni doomu aadama yu fes yooyu di jëfandikoo ngir song doomu aadama yi waaye ci dox seen diggante ak euh, seen borom ba duñu ko topp waaye duñu ko jaamu ni mu ware ngànnaa yooyu nga xam ne moom la nooni doomu aadama yor ak euh, kaso yi nga xam ne ci lañ ko war a tëj ak ni ñu war a jàmmaarloo ak moom ba duñu ñu mën a songu loolu sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko te ci bind bi mujj ci euh, loolu lañ nekkoon ba ñi ngi taxawoon fi sëriñ bi doon waxe ne wa sijnun lil hawa sukutun amma lam yaku za faidatin wa naama amma silahuhu allazi bihi yasuul fa kasratul kalaami fil fudul kon foofu mi ngi ñu doon wax kaso bi nga xam ne ci dañ war a tëje bànneex waaye ngànnaay li nga moom la bànneex amee Euh, te ñu war ko damm waaye war ko tëj ci kaso gi nga xam ne moom lañu ñu sëriñ bi digal ngir bu ñu ko ci tëjee ci la ñuy amee ak mucc ci bind boobu lañ taxawoon suñu bindu tey di wax rek ne minal jihaadi an yuxaafisa ala xududi jalla wa bi radiallahu anhu nee bokk na ci jihaad an yuxaafisa mooy nga wattu ala xududi rabbil arsi ci daytali suñu boroom bi nga xam ne mooy boroom aras jàlla màgg na wa alaate mu kawe wa yaqif te ngay taxaw inda amrihi fa ndigalam wa nahihi ak ay tereem wa an yatuuba teyit ngay tuub kulla xiin jëpp jamono moo tarif ngay aji euh, euh, xam bàkkaar waaye ngay aji reconnaître li nga xam ne mooy bàkkaar boo def sëriñ bi radiyallahu anhu na bokk na ci jihaad mooy nit ki euh, wattu ci li nga xam ne mooy daytal yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala teg muy ay limitam yoo xam ne daf la leeral li nga xam ne mooy lu dagan leeral la li nga xam ne mooy lu araam lu dagan nga xool fa nga xam ne limite yamu am ak fa mu yem nga yem fa waaye lu aram nga xam fa mu tàmbalee ak fa mu jëm nga fexey ba loolee doo ca euh, tàbbi waaye lu lënt sax nga fexey ba doo ci tàbbi kon yooyu yëpp euh, jullit bi daf ko war a xam ba xam euh, li nga xam ne mooy limite yi suñ borom bi subhanahu wa taala teg ci lu nekk ci dagan limite yi mu ko wutal waaye wutal lu araam itam ay limite nga xam ne ku ca tabbi tàbbi nga ci lu araam waaye wutal lu lënt itam ay ay limite yoo xam ne Euh, képp koo xam ne euh, amoo lu la leer ci mbir mi lu dagan la wala euh, lu araam la bañ koo jëf day gën ngir nga bañ a tàbbi ci loo xam ne lu araam lay doon kon moo tax yonent sëriñ bi radiyallahu anhu ne bokk na ci jihaad mooy nit ki sàmm digganteem ak sàmm digganteem ak daytal yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala teg waaye muy taxaw ci ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala waaye itam muy moytandiku tereem yi ah, te it muy tuub di i'tiraaf bàkkaar maanaam di xam bàkkaar ba pare bu ko xamee wëlbatiku ah, tuub ko moom lay wax ne wa an yatuuba ah, niki noonu itam muy tuub kulla xin jëpp jamono moo tarif muy aji reconnaître bàkkaar maanaam xam bàkkaar bi mu def ba pare wëlbatiku xam ne bàkkaar bi la def mu tuub ko limite yi daytal yi suñu borom subhanahu wa taala nag bu ñu ko waxee mooy li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo araamal te mu leer nañ ñi ne lii dafa araam boo ko defee tàbbi ci bàkkaar lu ki mel ni ay njaaloo lu ki mel ni naan sàngara lu ki mel ni ay sàcc yooyu yëpp nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo araamal wutal ko ay limi wutal ko ay ay ay ay ay mbugal yoo xam ne da koy teg ci képp koo xam ne def nga ko yooyu yëpp jullit bi daf ko war a xam waaye bu ko xamee Euh, mu xam naka la koy moytandikoo waaye itam bu xamee loolu ba tey mu wëlbati ko xam li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle su ko defee mu uh, taxaw ci digle ya uh, def ko comme ni nga xam ne noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala santaane mooy li ñuy wax ne imtisaalul awamiri wajtinaabu nawahi maanaam taqoo ak digali suñu borom subhanahu wa taala waaye uh, wattandiko li nga xam ne mooy tereem mi te li nga xam ne dafa lënt ba mënoo xam lan moo ci atteeb suñu borom subhanahu wa taala itam nga bañ a yëkkati sa tànk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi ñuy wax ci xadis ne innal xalaala bayyinun maanaam lu dagan day lu leer la wal xaraama bayyinun li araam yitam leer na wa baynahuma umurun mustabihaat seen diggante ñoom ñaar muy diggante lu dagan ak lu araam Euh, am na ay mbir yu lënt yoo xam ne moo nekk ci seen biir yoo xam ne kenn xamut lu dagan la wala lu araam la euh, yooya nag maanaam bu fekkee ne xamoo lu dagan la wala lu araam la lay gën mooy nga taxaw ca euh, bañ caa dugg su ko defee loolu dana la dimbali ci nga mën caa mucc moo tax mu ne baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kasirun min annas fa man ittaqa subuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi nee na képp koo xam ne nag maanaam moytandiku nga subuhaat yooyu nga xam ne dafa lënt ba xamu xamu kenn xamut lu ci di ab àtte nee na day boo ko defee euh, setal nga sa diine waaye ñoŋal nga sa der wa man waqaa fi subuhaat waqaa fi lxaram nee na képp koo xam ne subuhaat yooyu ta nga ñuy wax tàbbi nga ci nee na day mel ni tàbbi nga ci lu araam karraayi yara xawla alxima yusiku an yaqaa fiihi day mel ni sàmm boo xam ne day sàmm ci aw dikk sàmm boo xam ne day sàmm ci aw dikk moom mënta euh, garanti ne jur gi muy sàmm dugg ñu ci toolu jàmbur ndax aw dikk dafa sew-sew goo xam ne nit ki mën naa sàmm ak juróom dugg ci toolu jàmbur jàppoon na ci digg rek la yam tax kon mu ne euh, kara yara xawlal xima yuusiku an yaqa fiihi ala wa inna li kulli malikin xima bépp buur nag am nga euh, li nga xam ne mooy aw dikk ala wa inna ximallahi maxaarimuhu bu dee digu suñu borom bi subhanahu wa taala mooy li nga xam ne daf koo aramal waaye mu tere ñu ñu yegg ca kon euh, loolu suñ borom bi subhanahu wa taala araamal war nañ koo xam waaye bu ñu ko xamee ba pare euh, ñu fexey euh, dica ca doxee na nga xam ne noonu la ñu ko digle bu dee tere la ñu fexey moytandiku ko waaye bu dee mu digle la ñu fexey ñu fexey ndigle yooyee ñu nekk ca sëriñ bi di wax ne wa an yatuuba kulla xiinin mutarif nay euh, jullit bi nay tuub ci jëpp jamono waaye nay euh, tuub gi na sarti tuub daje ci tuub gi bu ci jiitu mooy al i'tiraf mooy na xam bakar bi mu def ba pare euh, reconnaître ne moom mi moo def bàkkaar bi mooy li mu wax ne mutarif bi zanbihi mu i'tiraf bàkkaaram li rabbihi ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa taala min xable an yakuna saaxitan la njëkk muy nekk di aji sàññi alayhi ci moom fi zaman ci jenn jamono kon aji aji aji aji def bàkkaar ji la muy jëkk a def mooy euh, bu defee bàkkaar rek moom na i'tiraaf ne def na bàkkaar maanaam na xam ne bàkkaar bi moom moom moo ko def te lu suñu borom subhanahu wa taala araamal la moom mu wëlbati ko def ko kon bu ko defee euh, bu defee bu i'tiraafee bàkkaar boobee ba pare nag lan la cay teg moom la sëriñ bi daa wax ne wa min shurutiha nadamatun ala ma fatahu min al maasi musjala nee na bokk na ci sarti tuub day mooy eh, aji def bàkkaar bi eh, rëccu bakar bi nga xam ne def na ko waaye rëccu mooy yi nga xam ne def na ko te mu wees mooy gu di doon rek eh, bu ko intiraafe mooy bu xamee ne moo ko def ba pare na wëlbatiku rëccu ko su ko réccoo nag ba pare ban charte moo cay tege moom lu sëriñ bi di wax ne wa niyatun an la yahuda li zunub mooy mu yéene ci bañ a dellu ci li nga xam ne mooy uh, bàkkaar yooyee muddata umrihi li xawfihi al qarib diirub ak dundam ngir ragal goo xam ne ragal na ko suñu borom bi subhanahu wa taala kon ginnaaw bi nga xamee ne réccu na bàkkaar bi nga xam ne moom la def ba pare na yéenee baña dellu ca bàkkaar ba waaye bu yéenoo bañ a dellu ca bàkkaar ba itam na eh, yéene bañ a dellu googe na ko yéene ngir di dundam waaye su yàlla dogalan tey mu dem ba fakkastalu defaat bàkkaar itam eh, bu mu bu tax bu mu tax mu bañ a eh, tuubaat na tuubaat tuub gu sell rek te sarti tuub ya daje la su ko defee suñu borom subhanahu wa taala mën na koo jéggal ndax suñu borom subhanahu wa taala mooy wax ne xool yaa ibadi allazina asrafu ala anfusihim laa taqnatuu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwal gafuru sama jaam ñi euh, yi nga xam ne da ngeen di yàq di ay bàkkaar bu leen naagu mukk ci yërmande suñu borom subhanahu wa taala ndax suñu borom subhanahu wa taala mooy buur bi nga xam ne day jéggale bàkkaar yépp bàkkaar yépp daf koy jéggale su fekkee ne nit ki jéggalu na ko ndax moom mooy euh, aji jéggale ji waaye mooy aji yërëmi kon loolu war na tax jullit bi saa boo xamee ne def na bàkkaar bu ko bu xamee ne def na ko ba pare mu wëlbatiku euh, rëccu ko waaye bu ko rëccoo mu wëlbati ko mu wëlbatiku yéenee bañ caa delluwaat su yéenee bañ caa delluwaat gaaw daal koy tuub bala ñoo toj bunti tuub yi su ko defee loolee mën na koo dimbali moo tax sëriñ bi boo demee ci Munawwirus Sudur ci maratibu tawba mu ngi koy wax naa fa ba tawbata war rushdal tamis min xabli xalqi baabiha yaa multamis nee na na ngay gaawe ak tuub yow aji sàkku ak jub la njëkk ñuy tëj bunti tuubi non saa boo xamee ne def nga bàkkaar rek na nga wëlbatiku tuub ndax bala ñoo tëj bunti tuub ya Eh, yow aji sàkku ji eh, yow aji sàkku ji eh, yow aji sàkku ji aw yiw nee na na nga fexey nga tuub bala ñoo toj bunti tuube bu baax a baax moo tax mu ne fa baadiri taw war rus dal tamis min xabli xalqi baabiha yaamul tamis kon loolu lu ama am solo la nga xam ne kon tuub dafa am ay sart sart yi saa boo xamee ne nit ki dajale na ko boobaa tuubam googee mën nañ caa am yaakaar mën nañoo yaakaar suñu borom subhanahu wa taala jéggal ko muy kon tey rek boo di wax ne wa an yakuna taarikal asiyaani ak mu nekk koo xam ne aji bàyyi ak mooy la in kaana asiyan su fekkoon ne mi ngi doon mooy bilaa ci lu dul yeexe ci lu maanaam su fekkee ne aji euh, def bàkkaar ji de da ak mooy la doon def maanaam ca saase rek na na na bàyyi mooy ga te bu mu ci yeexe dara dara dara bu ko yeexe bu fekkee lu suñ borom araamal la doon def da doon njaaloo masalan euh, bëgg a tuub ca saase rek na bàyyi njaaloo ga bu mu wax ne damay eggale li may def ba pare dooga euh, dooga dooga tuub bu fekkoon ne da ko yoroon fekkoon mu yor kaasub sàngara na teg kaasub sàngara bi euh, te yéenee tuub tuub bu sel su ko defee loolu mën na ko mën na koo musal bu ko defee loolu mën na koo musal mën naa tax suñ borom subhanahu wa taala jéggal ko waaye bu mu yeexe tuub gi wala muy am lenn lu muy xa moo tax mu ne wa an yakuna taarikal asiyaani in kaana asiyan bila tawaani wala lahu taxirun aw tasabburu waaye du ko ñeel nag ak yeexe wala mu ne damay muñandiku li tawbatin ñeel ak tuub wala yaqulu asbiru wala muy wax ne naa muñandiku ba nangam wala naa xar ba nangam saa boo xamee ne bàkkaar bu mu war a tuub def na ko rek ca saase saase na ko tuub ndax xamut uh, tayam tayam xamut subaam su ko defee loolu mooy tax uh, mu war tuub bàkkaar yi nga xam ne uh, daf koy def moo tax mu ne wala lahu taxirun aw tasaburu li tawbatin wala yaqulu asbiru bu mu wax ne damay muñandiku xataata fi hidayatullah ba suñu borom bi subhanahu wa taala gindi ndax am na ñoo xam ne dañuy def bàkkaar ba pare waaye bu ñuy def bàkkaar dañuy continuer rek di def bàkkaar yi ñuy def di wax ne suñu borom moo nam magut ma jub te yow euh, maanaam defoo euh, lenn loo xam ne moo lay tax a génn ci bàkkaar yi ngay def wala moo lay tax a génn ci mooy yi ngay def kon bul wax ne damay xaar ba yàlla gindi ma ndax loolu day sëriñ bi nee na fa inna za alaamatul xislaani loolu de mandargaam gàcce la mandarga la moo xam ne ku ko am na nga xam ne mandargaam gàcce mi ngi ci kon aji uh, aji aji aji def bàkkaar bi uh, su fekkee ne mi ngi def bàkkaar rek te bëgg tuub ca saase saase na ko bàyyi waaye bu ko bàyyee itam na dem tuubi te uh, rëccu la nga xam ne mooy bàkkaar bi mu defoon yéenee bañ caa dellu su fekkee ak mooy la wala loo xam lépp loo xam ne moom la mën a doon loolu li ko ni ko mag ñi di misaale mooy mi ki ngi mel ni aw xël maanaam ki nga xam ne mooy tuub na mel ni ku jël ab tànkam teg ko ci aw xël aw xël saa bu nit ki jëlee ab tànkam teg ko ci aw xël ca saasay saasa rek day daal di euh, teggi li nga xam ne day xam ne moom mi li mu teg tànkam baaxut ca saasay saase mu teggi ko te it euh, maanaam du delloowaat tànkam ci la nga xam ne mooy xël wa nga xam ne moom la ko tegoon ba mu su ko defee loolu moom la mag ñi di misaale ne tuub ak tuub dëgg-dëgg noonu la war a mel saa boo xamee ne ak tuub mel na noonu nga xam ne ki def mbir mi xam na ne moom mi moo ko def euh, te it du ko du ko du ko du dellu defaat lu mel noonu euh, rëccuwaat lu tax mu def ko su ko defee charte yooyu su fekkee ne daje na euh, mën nañoo am yaakaar ci aji tuub ji bu baax a baax mën nañoo am yaakaar ci suñu borom subhanahu wa taala nungu tuubam googu waaye jéggal ko li nga xam ne mooy bàkkaar yi nga xam ne moom la def kon nit ki bu mu wax mukk ne ah, damay xaar ba yàlla gindi ma ci ah, mooy gi ma ne mu jële ma ci wala bàkkaar yi ma ne waaye yow yaay fexe nga def say effort yow yaay fexe nga gindeeku yaay fexe nga jub yay fexe nga tuub jëm ci say borom bi subhanahu wa taala waaye yéenee bàyyi lépp loo xam ne ak mooy la waaye yéenee bàyyi lépp loo xam ne lu ñaaw la ndax eh, suñu borom subhanahu wa taala boo defee loolu mu man la cee jàppale ba eh, gindi la moo tax mu ne xata eh, wala lahu taxirun aw tasaburu li tawbatin wala yaqulu asbiru xata ta fi hidayatu rahmani fa inna za alamatul xisdaani kon nee na képp koo xam ne da ngay wax loolu rek naan damay xaar ba suñu borom subhanahu wa taala gindi ma ma tuub nee na na nga xam ne loolu day mandargaam gàcce la waaye mandargaam texee di dëgg la Euh, kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di wàcce foofu kàddu gi di wax in uridu illal islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey